Abdoulaye Balde daal Assane dafa mel ni ku jaaxle Abdoulaye Balde mu doon wax naan daal euh, daal romb na xom ay gars yi nee na ñaan Sonko sunkoo ñëpp nee daal xam def naa jamonoy campagne bi yooyu amoon na fi ay reetaan humour kafanteeg yooyu bi yoon nag moom nee na cinq milliards yi fa bàyyi woon lay laaj fu mu dugg ndax dëkk ba ba mu demee xàmmeetu ko ci biir wax jaat nee nañu nee na daal am na euh, maanaam day jàppale président Sall 2024 mu nekk candidat waaw am na solo cinq milliards yi yi nga xam ne moom la fa bàyyi woon moom lay laaj fu mu dugg. waaw ah, loolu de jaar naa laaj moom ba xam ma nga fay tege ba léegi wala ña ngi koy lekk wala séddoo nañ ko wala liggéey nañ ci. Hmm. waaw cinq milliards yi anam mais nag mu doon moom sax du jarati may laaj cinq ginnaaw moom dem naa te bu ma demee ña ñëw sama ginnaaw xool nañ xaj na def naa fa lu xamante war naa koo def def naa fa loo xam waruma koo def xaj na gis nañu ni rek ginnaaw rempli nañ ma daal nañ jublu sa liggéey ba. moo ëpp solo yeneen mm-hmm. ma bañ leen a jéem a audit bañ leen a jéem a lijjanti ndax boo leen jéem a audit wala nga jéem leen a lijjanti ñoom mën nañoo wëlbatiku di jéem a audit di jéem a lijjanti yeneen cinq milliards yi génnaale mm-hmm. te doo ko mën a indiwaat mm-hmm. kon nag mën naa bàyyi cinq milliards ya foofa te bañ a laaj eh, ya fa ya des ginnaaw bàyyi nañ ya génn bàyyi na yéen génn bu dee cinq ya génn kenn tudd ko ya fa des wuru wuru daa muy génn bref. non non da xaaral bref lan non non Assane nag Assane nag vraiment nag ba bref mooy a def la non non il est xam vraiment bref. mais lii du lu ñu war bref. non sooy lii moom bu koo xalaat. non non Assane kenn xalaat fii kenn musu koo séentu fii Assane moom fii mu dóor non Assane jabar jàng ja non non non est-ce que du Asou. non non Amina koy jàngal. <laughs> mu la dóoree de la bref ah, bref. Ah, ah, extraordinaire ko bref. non Assane il est fort bref. bu fekkee da nga ciy dellu si ma dinaa ci dellu si waat. waaye lii lu ñu war a <laughs> joxe information yow. ci bu ma déggee damaa jàngat. non da nga joxe information maanaam da nga dafa am yu génn am yu fa des. léegi moo tax man la yi génn anam doo bàyyil ki ngay diingat. lii diingat la du laaj. nee naa la bref foofu brefal bref bref. bref ah, bref kon kon brefal. léegi dëkk bi xàmmeetu ko. waa ah. léegi nag da nga ne xàmmeetu ko yam ca. Hmm. dama am sama gars yi may dégg ñaan bu ñu demee tukki bitim réew bu ñu ñëwaatee team Sénégal comme Paris xàmmeetuñ Sénégal. waaw bi ñu tiimee Sénégal. waaw waaye bi ñu wàccee. bi ñu wàccee nag àgguñu sax. Ah, waaw bañ ko tiimee léegi moom Abdoulaye Balde dañu xàmmeetu si gay soor maam si ñàkk liggéey wala ci liggéey loolu laa lay delloo la ci dëkk ba salte ga ak yooyu ah salte gi nee nañu àgg na ca salte ga ak dëkk ba daal dafa salte ah, kon nag Ousmane Sonko na jóg si dëkk bi salte gi daal di dakk d'accord na si jóg liggéey ko liggéey boobu mais yeneen cinq milliards yi doon wax fu mu dugg euh, joxal hélas waaw <laughs> eh, baax na mi ngi noonu alaaji euh, Balde de su ma ko déggee daal mooy def si si si daal mm-hmm. ñaar ñu ko seqoon te mu war a mën a yaatu daf mel ni kenn ka Bernard Langam. Hmm. ndax ñoom ñaar laa xamoon foofu ci Ziguinchor ay ay ay candidats yu yu baax waaw kenn ka nag nee dem na ci mag Sall. waaw Balde bu ma ko dégloo euh, daf may jox euh, ku tiit. tiit waaw parce que li tax ma ne la daf may jox ku tiit. Hmm. Euh, koo xam ne day bañ génn ëllëg waa Ziguinchor ne ko yàpp nga ñu. Ah. li tax loolu boo seetee Ousmane ko bi mu annoncé ne yow jëlee na budget bi. nangami milliards yóbbu ko nangami milliards. Mhm. Euh, ci expliquer fi nga xam ne fa la war a jëlee xaalis ak yooyu yëpp mu expliquer ko. Mhm. Balde mi ngi fi woon waxut. Mhm. yaa ngi dégg. mi ngi woon ne teg waxut parce que boobu Ousmane ko dafa déclaré woon ne budget bi xaw ma ay deux et quelques milliards la woon. léegi jëlee na ko foofu yóbbu na ko ba cinq milliards loolu lañ njëkk a Balde waxut waaw. ñu ñëwaat ñu ne budget bi nangam la encore. yegg na fi mu toll nii six milliards. du dëgg. waaw euh, daal Balde waxut. Mhm. waaye bi Ousmane ko waxee li mu war a def. ci Casamance. Mhm. ci la Balde génn loolu mooy li ngay war a def maa fi bàyyi xaalis bi. ah bu ëllëgee bu ko bëgg a joxoñ mu ne maa fi bàyyi li fi defar. bàyyi naa fa cinq milliards Balde lool lool lool lool la bëgg a. expliquer quoi maanaam maanaam bi Ousmane Sonko waxee mu ni mën a. dina def lii dina def lii dina defar stade teg na ay mbir yoo xamante ne bii moom la wax ne lii la war a def léegi ci xaalis bi mhm. léegi nag Balde nag loolu la bëgg a wane ni lii mu fi bëgg a def maa fi ba xaalis bi pour bu ëllëgee mu mën cee jàpp ne alal ji ma fi bàyyi woon la hmm. lu tax waxutoon ci bi ñu waxee lii lu tax waxutoon ci bi ñu waxee lii léegi mu bàyyi bañ na léegi yëf yi lii lañ ci war a def mu soo a wax parce que lu Ousmane Sonko wax ne war na ko fa def Sénégalais yi ñu ngi koy xaar waa Casamance a ngi koy xaar ci loolu nga xam ne moom la war a réaliser mhm. donc loolu nga xam ne moom la war a réaliser ndax bu ko defee ba pare léegi xam naa Baldé dañ naan kii de jox nañ day bañ ëllëg si biir ñu ne jox nañ ko fi mairie bi pendant nangami at hmm. munu fee def lii te kii moom dañ ko fi jox pendant nangami at rek mu commencé defar lii. Hmm. léegi nag moo tax mu bëgg a jafandu ci liggéey boobu di waree ñëw ne lee di xew mën a bàyyi naa fi nàngam dégg naa la loolu mooy li nga xam ni moom laa gis ci mbir mi quoi. d'accord la daal bref.